man nag sama wax du tàng dina tàng parce que mën nañu wax ne que politique def waaye politique bu ñu gis Sénégal léegi war na tiital ku nekk kuy doomu aadama ci biir réew mi parce que nag bu fekkente ne ñun ñu nekk ci nguur nekk au pouvoir ànd ak président Macky Sall xooluñ ne war nañoo xoqatal nit ñi exercer suñu pouvoir légitime ci kaw nit ñi nga xam ne chaque jour dañuy fóote waaye mu dem ba mel ni ñi nga xam ne ñoom lañu ñu yaakaaroon ne ñoom ñoo war a sax am lu ñuy tiit ñooñu tey ñoo dem. ba yaakaar ne réew mi ci sa loxo lañ ko teg nañ waxante dëgg li am ci réew mi nañ ko xoolaat ñan ñoo nekk parce que dafa am loo xam ne moo commencé mooy ba ñuy installer assemblée nationale dañuy naan lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro ba ñan ñoo fa nekk kii daa rey nit kii violé nit faf sax mujjul bokk ñeneen na ñett ci biir assemblée bi nag ndoon ay agresseur di rey nit ñi parce que nag Ami Ndiaye ñii bi suñu sœur madame la maire ku ne xam nga jigéen bu wanu lor man ci laa jóge yàggul dara ñu jël tànk weq la ci biir nañ waxante dëgg ay reykatu nit ñoo nekk ci assemblée nationale bi Amy Ndiaye ñii yàllaa ko bëgg nañ wax ak sénégalais yi parce que ñoom ñoo leen fal ñoom ñoo leen jox seeni voix voté leen ba ñu dem assemblée nationale lu gën a rafet vote budget vote bi lu ko waral koppar gi président Macky Sall lu jël ni nañ ko jox askan wi ku ci ànd nga yëkkati loxo wax li sa xalaat ku ci ànd nga wax li sa xalaat Ami Ndiaye nii bi nañ ko wax te dee inventé la mu wax la mu wax dafa am vidéo yaa ngi fi lépp a ngi léegi au nom de quoi ku ne am nga droit tant sa tant toog wax lu la neex ne ab député amul droit wax lu mu xalaat ci biir assemblée nationale au nom de ñu ne déet waaye ñu ne nañ ko toroxal nañ ko terroriser bu ko defee keneen dootu ko fa wax ku am sa sëriñ yedd ko ndem sëriñ moo war a yedd taalibe waaye sëriñ bu làngu ci politique bi man damay wax wax ji de bu ma sañ a ci waxu politique dañ lay wax waxu politique sëriñ bu diini la nit ku am kilifa la nit ku am borom këram la du jigéen buy taxawaalu politique ba mu jotee da def ci anam na mu gën a rafetee dëkk ci Saalum Awa Gueye mii xam ne ko Awa Niang mii xam na ko mu nekk jigéen bu jàmbaar mais ku ragalu lu muy wax la ragalu ko tey ragalu ko ëllëg léegi bu la neexee nga tànn sa daal wax lu la neex président Macky Sall nekkal du wax le contraire wala kenn dafa loolu dafa war a dakk te nos députés de l'Assemblée nationale parce que bu fekkente ne xeex rek a des waaye ku ma fëgg ma fëgg la waay lu tax ku ma fëgg ma fëgg la Amy Ndiaye ñi bi mérito wu lu ñu gis démb lan moo ci topp après ay discours balaa ngaa génn assemblée bu ma toj sa waaye yow. koy ree yéen ko jooy yéen a koy ree yéen ah, ah, nañ ngi koy ree waaye na xam ne jigéen bu wonnu lor loo ko def xamoo sax li ci nekk c'est très sensible yow góor nga jël sa doole jël sa tànk wekk ko ko kii mbéj ko ñu ne fu ñu ne ci démocratie lañ nekk ñu ne ku ñuy défendre intérêt réew mi lañuy ñuy ñuy défendre intérêt mi ñu ngi ànd ak président Macky Sall di moom ci jàmm ak salaam président Awa Guèye nee na naa wax ci séeréer fogole séeréer ke xew na kam saaxle fat wiin we ɗeetin fat wiin we andin agresseur ndefu meen violeur ndefu meen wa andoona yee ga mbara wiin den ndefu meen so weene koy nu ɓisa den assemblée nationale dañam député den ambi'aaden ka andoona yee xoteeɗat il faut ga'ingiima roog ku refeerna quartier julit refo sénégal waagaam o lay ee ate refatee meen oxu refeerna quartier julit refo kono kiin o kiin jega tarixa na gimoona ndaa koy o refanga sériñ soo moofa tante a xasa xu felonga laya xu felonga président Macky Sall ku felonga o lay no wona oxe andoona yee ten refu xalifof sax ku felonga o layno ten so laye koy ko rokna politique ndaa o leŋ layke faw politique kaaga waagee ref oxu rokna no politique o layin politique xu bugeerna layin politique koy o moof no mbinof tunga taalibe o fangara siyaare ino kaaga ref xale